c'est que on avait déjà vu les prémices ñëpp gisoon nañu li ñu daan def mais par rapport à déjà pour prise de parole euh, wax nga ko euh, Cheikh Tidiane ji la ñuy écarté ak Amadou Ba mais ils ont laissé les autres passer donc foofu ci saa si doo xalaat ni émission kii kii lu am da yaakaar ni comme d'habitude ils sont en train d'écarter les gens de Pastef parce que en fait ñoom la ñuy ragal ils n'ont peur de personne d'autre que que que que que de Pastef que des candidats de Pastef léegi concernant suñu ànd bi am nga ñun bu ñuy commencé politique la président Ousmane Sonko nous pose toujours qu'est-ce que c'est que la politique ñun si base bi la ñu dem c'est l'art de euh, la phrase de s'occuper l'art de gouverner la cité waaw des affaires de la cité ñun foofu lañu nekk ba léegi et nous restons toujours très constants le président Ousmane Sonko a toujours dit que moom il est très open pour les alliances képp ko nga xamante ni même boo bokkee ci système bi nga yaakaar ne war nga mën li liggéey ak moom te moom mu nga gis na ni war tu as les mêmes problèmes nga mais day liggéey ak yow sans problème donc partant de ça quand wàllu kii nu mu tudd taxaw nous a con nous a appris contact avec le président Birame Souleye bëgg a ñëw ñu bokk position contre cette loi là mais la moo tax dañuy ànd ak liggéey. parce que ce qui est important c'est la nation c'est la patrie qui est importante mais c'est pas suñu intérêt crypto personnel non non parce que ñun xam nañ ñun ñooy ñan xam nañ fan lañ jëm te suñu constance depuis bu ñu commencé politique amoon kenn ci Sénégal kuy wax ni parti bi wàcc na yoonam constance rek lañ ñuy gis fu lu ñu waxoon depuis démb. ba tey fa la ñuy nekk. ñëpp constance la ñuy woote te ba suba fa la ñuy nekk ñëpp constance koo wax mun la patrie bee ma ñor il faut il faut voir il parcours. koo wax mun la patrie bee ma ñor ñi faut voir le parcours parce que ñun ba ñuy wax dialogue demuñoon ci dialogue bi parce que dañuy wax ne dañuy boo xamante ni sera contre le peuple. bu ñu waxee dialogue boo xamante ne ëpp ñëpp day xam ba Sénégalais yi xam lii lan la ñuy dialogue loo xamante ne sera pas pour blesser la population parce que peut-être que dina ci et je peux pas parler parce que bokk ma ci instance yi nga xamante ne ñoom ñoo jël décision yi peut-être que c'est dans le bureau politique mais am na tout le temps étant un venant d'un parti bien organisé bien structuré ñun dañuy xaar ba ñu war a dem déglu déglu et cetera kon foofu mënuma ci wax lu bari mais on a toujours di que tout ce qui va se faire contre le peuple duñ ci ànd tout ce qui va se faire pour favoriser une élite duñ ci ànd parce que population bi moo ñu ñor et on a montré durant tout notre tout notre parcours que ñun fu ñu teg seen tuñu tànk depuis démb fa la ñu nekk démb ñu ci dialogue boo xamante ne day écarté yi jàppale ñi mais la preuve euh, déjà bu ñu jëlee kii nu mu tudd bu ñu ba ñu demee assemblée on a déposé pour que ñu mun a am des des kii inclusifs des élections inclusives léegi le président de l'assemblée n'a jamais répondu il n'a jamais réagi il n'a jamais réagi pour dire que ñun depuis le départ dañu wax ni ñun bépp sénégalais koo xamante ni tu as le droit d'être candidat nañu def de telle sorte que chaque personne soit candidat mais yow ñëwoo ci dialogue bi euh, yo kon kon yow dama lay bloqué yow ñëw nga ci dialogue bi kon yow di nga ànd ak man te da ngay def man lu ma la wax parce que li moo andi lii c'est parce que ils on été au dialogue avec des conditions ñi nangu ko moo tax te ñu leen di renvoyer l'ascenseur ils sont obligés d'aller parce que le PDS n'a absolument rien à perdre je pense wax Karim Karim mais qui est Karim au nom de quoi on doit arrêter les élections au Sénégal parce que Karim n'est pas candidat non, quand n'a pas été candidat en 2019 non laissez-moi terminer n'a pas été candidat en est-ce qu'ils ont arrêté les élections pourquoi ren ñu arrêté les élections c'est parce que c'est une commande de Macky la tout simplement. kon yow da nga jàpp ni bu amee bénéfice kenn moo ci mën a tirer bénéfice. moom rek la enfin les autres ils peuvent avoir. Mmh. ils peuvent avoir mais c'est le principal concerné moom moo soxla comme je vous avais envoyé l'ascenseur vous me renvoyez l'ascenseur.